Ben jàkk 10 000 problèmes ñoo ngi ci 3 Tite ak Nous mo ñeel askan bi Nous ci gox ndax yu jakarlo ak bu waja daanu sen kaw. bâtiment bu et ba paré daan ndox di toujours et ren ñu xam ak nawet bi nu mu démé bon vraiment ñun dañu nekk dans une insécurité totale parce que bon, xolé bâtiment bi ak élevé ba non seulement dañuy fermer dañuy enclaver d'abord, et d'abord sur le plan au moins peut-être qui euh, ne ma ko mën a tuddee aération bi hein, mais secondo aussi euh, pratiquement nous nous yo yooyu bari fi ci kii bi lay jógee di di di ñu

ah ñu ngi koy jooti état di ko jooti tamit ñi nga xam te ni moom mooy préfet. jàkka ji de man bu ma sojoon tey ñu toj ko parce que ñun ñu ngi si danger sunu kër gi amuñu ération ndax jàkka ji bon léegi léegi sunu ardoise yi léegi léegi day am xeer buy jógee ci kaw daanu si kaw ardoise toj ko waaw te fi mu nekk nii mënuñu si dara parce que préfet toj eh, tëj nañ ko su préfet tëj na jàkka ji moom commissaire te ñun amuñu fenn fu ñu jëm parce que affaire yàlla la.

dañ ko continuer paye ya fi nekkon biñ ko biñ ko defé ñu and ak tamit suñu frère suñu xarit l'imam Asma Malik Bay ñu and ak mom di liggéey ci commission bi bon par la suite dara dugg ci bobu c'est mom la ak quoi commission bi commission bi ak imam bi ñom ñoo nekkon euh don am ay jeex jaax ci ndaw dal ba nga xamanteni dal dem nañ ba kenn su ñom xawa drapé tuuti ba mu xawa andi Euh, conséquences yi nga xam te ne dafi dem ba préfet ñëw jël kiyam am tëj jàkka ji daal. le problème en est que bon kenn teewul kenn julli si biir jàkka ji bon mais problème bi mooy que ne ñoom dañoo wax affaire commission commission nag jàkk boo dem am na fa léegi commission bi moom mooy indi problème bi parce que ilimaan bi dafa bëgg ne moom mooy gérer xaalis te xaalis il faut mu am ay suivi waaw kenn du jël xaalis rek jox ko nit daan na alors que yow yaay iliman ñu jox la ko nga nga jiite ko comme ça déedéet iliman mën ngaa jiite ñu bàyyi la si jiite mais xaalis dafay am suivi. nit ñaa ngi wax ne nee na papaam moom mu jàkka ci bon lu ko neex lay def si jàkka ji wala moom kenn falu ko lu ko neex lay def si jàkka ji loolu dégg naa ko mais nag moom jàkkoor na wut ak man wax waaw loolu am na parce que nit ki tamit booy wax da ngay wax li nga xam ne moom la wax ak lii nit ñuy wax mais nag doo gëm doo dégg rek ne dëgg la waaw dégg naa ñuy wax ni moom mooy wax ni papaam moomul jàkka ja te papaam moomul jàkka ja papaam dafa ñëw fekk jàkka bi muy ñëw boobu daal ay xale la baraag la fi indi jàkka ji nekk baraag bi paa dem ba nga xamee ne dañuy tabax jàkka ji moom entrepreneur la ñu bàyyi ko moom. amul benn imam benn benn imam bu nekk au niveau de Pikine Est. même le maire bi nga xam moom moo nekk suñu commune même les ñi nga xamante ni ay doomu chef de lan ak ay chef de amul kenn koo xamante ni demuma si yow waxtaan seeg yow si lu mel nii ngir ñu tijji ko. li ko bloqué euh, xëy na ay ay ay ñagas-ñagas la ndax tamit dëgg dafa metti suñu imam la suñu xarit la man musuma dégg. fu commission bi taxawee ne dañuy dindi imam bi teg ci benen imam musul am man rapport bi ma yore man rapport bi ma yore li ma xam ak li ma wax man commission bi danañ ko imam toogal dañ lay fay dina la def nangam loo bëgg dina la ko defal mais nag da ngay dem di déggaat yeneen rumeur xam ma loolu tamit du xa defar c'est une groupe groupe la mbooloo la contre bonne mbooloo la contre li ma xam man mbooloo la contre benn parce que boo nee keneen rek day melni kon le mot baaw boobu ñuy wax kon baaw lay nekk fekk non parce que ya vie Diallo ya mut fay ya sira euh, euh, de fayor lañ dem ci yalla ci yalla nak yalla yàlla ya grand vie gay ya tout le monde ño xamanteni fi fii lañ juddoo sen papa bokkon si ñi nga xamanteni ci ñi sanki jàq ji lan donc xam na ne tamit si commission bi lañ wara bok parce que suñu papa ji nga xam mo fi nekkoon mu ko wax euh, pa Ousmane Balde mm-hmm. momit dan lañ wax lu bari si jàq ji ak jàq ji ni fi ñëwee loolu yëpp tamit dafa nekk loo xamante dafa a ba nit ñi xam lan la ak xew question ko day question ay xëccoo non non diggante imam bi la commission bi non non mais bu fekkee ne imam tamit dafa nekk nit koo dafa dafa dina nangu man mii di wax yow dem mu nangul ma mais au fur et à mesure damay mu bañal ma donc xam tamit du neex bañu ñuko su ko wax fi la dekk fi la juddoo fi la yoroo bu ñu sañoon ñun suñu bop ñun ñi ñun ñun ñoo ñëk taxaw rayante sax pour papaam mu nekk gox bi jakk bu tecc tax sa yu julli askanu waqinan 3 di jéggaani ci benen jakk ngir matal diglé sen borom bali si aku fafato yéeme di ku fa faatu du am moogu buñ ko duggal et yi mujj yu ci bari ba dima ba samedi bi passé kenen ki trawo lañ ko yóbbu donc ñun présentement ni à chaque fois que mu am ben cas décès bu nek ci koñ bi dañuy jéem xol soit juma jàkka yi nek trawo wala bu bu nek tali bes parce que yoy ñoo am morgue parce que benen bi nga xamanteni ne moo ñu gën a morgue boobu amul climatiseur amul dara donc ñun fa lañuy julé jullee ji chaque vendredi mais en toute sincérité

dañoo nekkoon si gox bi ak suñu yaay ji baax ji nga xam moom moo fi nekkoon doon waajal daa waajal uh, way uh, ñi nga xam dañoo làqu ñu koy wax suñu yaay sirandu yàlla na ko yàlla xaare àjjana moom ku fi faatu moom moo la doon sang si biir margo bi te moom kenn sangeewu ko fii si margo bi te loolu tamit nekk na loo xamante ni métti nañu trop te bu ñu sañoon loolu du am suñu diggante ak uh, suñu mbokk julit jaxle tax askanu waqinan taxaw tàllal seeni loxo gouvernement bi wala a ñu yor ay ndombal tànk ci gox bi ngir ñu mën a toj jàkka bile balaa jéeya di fi am. bâtiment bi wóoratul et que vraiment ñi mu jege ñi ngi ci benn insécurité et à tout moment mën na effondrer à tout moment et boobaa nag aussi jàpp leen ni waxoon nañu fa ñu xalaat ni état dinañu dégg fa ñu xalaatee ni nit ñi dina ñu dégg. et ëllëg lépp lu ci am muy domage nañ xam ni kat waxoon nañu en amont waxoon nañu à temps moo sañoon tey ñu daaneel ko tabaxu ko mu nekk jàkk parce que jàkk la musa doon musta nekk euh, kii grande mosquée musta nekk jàkk grande mosquée jàkk rek la musa noon bon place amuñu espace sax ñun fi mu nekk parce que génnee nañu place boo xamee ni à peu près deux mètres si mbedd mi te kooku defe naan bu doon kër la toj nañ ko wala mu fay lu ko ëpp waaw parce que bu doon mairie jaar na fi tey muy kër chaque chaque mois ou bien chaque année da ngay fay dédommagement boobu. jàkka ji ñu ñaan autorités yi autorités yi tojal ñu ko defaral ñu ko wàcceel ñu ko ba ñu defaat beneen kii su boobaa ñun ñëpp dinañ wootawaat ñuy waxtaan. waaw loolu daal laa xam ne moom nekk kii quoi. kon daal fi mu ne euh, priorité bi mooy. Mhm. ñu toj jàkka bi. Mhm. defaraat ko. waa priorité bi moom mooy mooy ñu toj jàkka ji defaraat ko bu fi dee nekkaat imam mu nekkaat imam bu fi ne imam ñu beneen imam population les ñoo woote décidé imam imam mais de toute façon moom di am importance kër yi nga ji loolu tamit ñaan autorité yi di même le président de la république même ñi nga protection civile nañ ñu jàppale ñun ñëpp ñu ñëw xoolaat affaire bi defaat si visite encore une fois bu ko defee ñoom dañuy ñëw xool xam ne kat lii mi ngi si danger actuellement ni jumaa ji dafa nekk en danger. Moustapha Gueye moom mii président imam yi jàng na xam ne lu yàlla wax jàkk kenn moomu ko bu ñu toog bay wax nañu wax lii yàlla wax ku mun a toog julli julli ku mun a toog toog julli nga dem sa yoon nga bàyyi nit ñi julli maa ngi koy ñaan loolu moom it mu taxaw ci loolu. Euh, imaam yi doon nañ fi ñëw doon def ay médiation ak euh, ñun ñi nga xam te ne ay délégué de quartier lañ ñun daan nañ fi dem tamit man daan naa organiser si délégué de quartier yi ñuy dem di def ay médiation à part loolu les maires euh, comme ñoom da xam naa ñu nekk si ay si système politique moo tax am na si yu bëri yoo xam te ne bëgg ñu si intégré ñoom seen système politique quoi ah boog si li ma foog waaw si li ma yaakaar boog xaw ma nag mais parce que ñoom boo dee xool dañoo waroon a gën a impliqué si affaire bi. xam naa ne tamit comme ñoom tamit ay politiciens lan xëy na am na loo xam te ne dañ fa am boo xam te ne fa mais nag ñoom kii yoon nañ leen inde ñoom ñoom ñoom doon nañ leen doon nañ leen boole si affaire yi jumaa ji pour ñoom tamit ñu siy jox seen kéemtalaay kàtt ku mel ne le maire de la ville Abdoulaye Thimbo daan na si dox di si wax. ku mel ne maire Isaaxa Diop daan na si dox di si wax am na beneen maire boo xamante ni man dama jàppale turam Moustapha fi ñëw di si wax di si def lépp daal. moom it bu ñu si mënee dimbali. mu ñëw tamit xool lan lañ mën a fexe ba démolir ko définitivement ñu refeeraat jàkk ji defaraat ko ba nga xam te ni daal day nekk jàkk ji mucc ayib ñëpp jéem a nekkaat si jàmm daal. et ñun mënuñu lu dul di def benn cri de cœur et peut-être autorité nag moo ko tëj et fu nekk nag jaar nañ fa pour wax ak ñoom mais l'idéal en tout cas ñun li ñu gënoon a soxal mooy une démolition dindi ko carrément lu ñuy def ñu defaat ko. bien que nit ñaa ngi ne ñu ngi yuuxu di wax nañ ko ubbi nañ ko ubbi euh, mais ñun ñi jege ak moom dëkk ak moom yaru fi judd fi yaru fi màgg fi et sës rek ci jumaa ji euh, xam nañ présentement li ñuy dund ci jafe-jafe yi dafa bari jafe-jafe yi sont multiples d'abord ci cadre sécurité bi comme ni mu ko waxee mais aussi li nga xamante ni mi ngi ñu koy avancé muy ay yoo yoo xamante ni ñu ngi génn foofu mais surtout ñu jàpp ni euh, fi ñu taxaw nii. bâtiment bi euh, vraiment dëgërutul dëgërutul parce que fi mu nekk da daan jël ndox moom nawet da daan sol ndox ci biir donc ñun yàgg nañ di génne moquette yi di defar di changer donc xam nañ li ci nekk yàgg nañ di ko sëq di rambler et ak niveau bi mu toll nii ni mu gën a tëju ni man j'en am naa certitude ni buñ ko ubbi woon dinañ fekk ay dinañ fekk ndox buy taajee donc quelque part li ñuy demandé mooy vraiment que état bi jóg.

ñoo ngi ñaan autorité yi ñu jublu ci problème bilee balaa tooxi duna di fi am fekk béy woy na mbuus